محمد رسول الله asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah sëñ Bolle maa ngi lay ziyaare bu baax sëñ Dame dafa mel ne ku la gis fii doon laaj loo fiy def ndax sa digganteeg Mouhamed Yacine Ndiaye ñëpp xam ne ngeen i di xarit di ay doomu nday bis bi kenn mënu ci nga taxaw ci ni ci wax taxawee kon lan ngay wax wax mbokki julli di mbokki taalibe ci tàkkusaan Seydina Mouhamed bi ci bis bii ci Thiénaba fii ci pencum Sëñ Ibrahima mi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Bolle ñu ngi ziyaare mbokk yépp di ziyaare it jullit yëpp di leen nuyoo fii ci ba ci ëttub Serigne Thiénaba Ibrahima Seck ci mbaaram nii ñu ngi leen di ziyaare bu ñu ngi leen di ziyaare bu baax di am mbégte ci bis bi nga xamante ni Mouhamed Mbuub moo ko tax di ko tax a guddi tàkkusaanu Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa ñu bokk ak moom bokk ak moom wóllëre bokk ak moom mbaax bokk ak moom teraanga sëkk ko ak yow mi toog ñu yàgg cee dox yàgg cee xalaat ba yàlla dogal tey bis bi am kon kàddu gu njëkk gi mooy sant yàlla li ci des nag mooy ñaan yàlla yàlla mottali ko waaye di am mbégte mu baax ak kontaante bu baax di ñaan yàlla na yàlla gën a gën ñu taxaw ko ay ati ati ati at barke Cheikh Thiénaba Ibrahima Seck waaye barke Mamoun Ndaw waaye barke borom guddi borom takusaan muy Seydina Rasulullah Omar Fassé Koyet mi ngi lay nuyu. Seydina Omar ñu ngi koy ziyaare bu baax teraangaam ñëw na ci bis bi euh, ay yéeneem ay bëggam yàgg taxaw ngir bis bi am kon jii ñun ñoo ko toogal. ñoo ko fi toogal teraangaam ñëw na ñu ngi koy jaajëf di ñaan lu mu mën tey yàlla na ko mën déwén yàlla na ko mën ay ati ati at ba bis bii bu ñëwatee lépp lu ci war moom mu moom moom mu def ko. suñ daam sant nañ la gërëm nañ la ndax gis nañ sa taxawaay sibis bi tey boo fi nekkul woon maa fi nekk te tey boo fi nekk boo boo see ñëwuma si bi yow yaa tax lépp lu waroon def lépp lu fi keneen waroon def taxaw nga lépp def ko jërëjëf yàlla na ko yàgg man yàlla na yàlla yàggal la kontaan na ci yow. jaajëf suñu boole kontaan na. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Assa ñu ngi lay ziar. loo yëg ci bis bi nga xam ne moom kontaan bu baax a baax di ñaanal bit bi nag yal na yokk sa kaw a kaw. barke naa Mouhamed ndax am na dara jóomu ko. salaam rahmatullah sëñ Boole Cissé. kii mooy sëñ Alpha Cissé mu bàyyi di Cissé. di doomi bàyyi di Cissé mu xaddam ma fii si Canaba. sëñ Alpha bi nga taxawee ci mbisi Mouhamed Yacine Ndiaye bii nga xam ne suñu digganteeg Mouhamed Yacine Ndiaye. ci yow mii la sosoo gannaaw yàlla. kon sëñ Alpha tey lan ngay wax léegi abigatage bi lan ngay yëg tey. alhamdulilah alhamdulilah lazi bi ni'mati tatimmu saalihaat nahmadu subhanahu wa taala hamdan kasiran ñoo ngi sant yàlla bu baax a ñoo ngi am mbégte a a waa sëñ Alpha tey woo taxaw si ëttu Thiénaba tey nga xam ne sa baay mu xaddam bu mag la woon fii sa baay ku ne ku ne baay di Cissé mu Thiénaba ñëpp xam ko tey boo taxawee fii bokk ci organisation bi lan ngay yëg. waaw dañuy sant yàlla bu baax ndax lii lépp ñu baay la ndax moom moo ñu tàmmal Thiénaba moo ñu xamal Thiénaba moo tax ñu bëgg Thiénaba moo tax ñu nekk ay Thiénaba Thiénaba donc tey bu ñu nekkee fii ci ci mbaaru si Ibrahima Seck di organiser dañuy sant yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla dóor ko àjjana di ko fi moom mboolem jullit. waa sëñ Alpha sëñ yow dafa mel ni suñu affaire sekk mu mag ma la man Baye Alpha moom moo uuf tuddee boppam. waaw macha allah moom moo uuf tuddee boppam waaw. suñu affaire ñu lay ñaanal baax suñu bari na nga mucc. amiin amiin tamos ci barke Yonent bi kon kii mooy suñu Alpha moom sëñ Baye di Cissé kon ñi ciy jaar di nuyu suñu xalifa ba Pape Cissé di nuyu bu baax a baax Kéba Cissé di wax ne bisub Mouhamed mënut a ñàkk mel nii bisub Mouhamed mënut a ñàkk mel nii ndax mooy doomi yaa Yacine Ndiaye doomu Ibrahima Mboup bu wootee faaw mu mel nii su Ahmed bu wootee faaw mbooloo mu mel nii kon Mohamed yàlla na nga yeggale sa ndaw Mohamed yàlla na nga yeggale new yoon lee sa ñaajuri ñaanal lee nit ñi ñaanal yàlla na nga yàlla jotale bi soobee incha allahu rabbi Mohamed suñu xarit la Mohamed suñu wóorale la Mohamed suñu doomu ndey la maay magam muy sama xarit Mohamed jërëjëf ñëpp kontaan nañ ci sa bis bii mbokk yi ñëw nañ xarit yi ñëw nañ soppe yi ñëw nañ ñëpp ñëw nañ kenn desul ba tey fenn xaju fi tey Janaba mohammed jerejeuf contane nañ maire yassine ngi ni tok soxna yaa ngi nii toog ñëpp ngi tok sant nañ ñepp waye nag duñu fàtte di nuyu bu baax baax suñu soxna su baax maam Xadi ñu lay ziaré baaxa baaxa baax di la nuyu mbay yaaram sang beram jërë ngeen jëf salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh sang bi sëñ bi dafa tay ne tey de ku la gis fii doo laaj lo fi def ndax sa diggante ak lan ngay wax ci bisam bi ah, sant yalla bu baax di sant sëñ mohammed wi nga xani moñu fagul yewu reewi lol ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni képp ko woote yiw ñeel na la sa fay ak fayu képp koo xam ne wuy ji na ci woowu te yàlla dafa wax ci alquran ya ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirasuli ida daakum lima yuhyikum yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla te muy dëggu ci yéen te yàlla ñor leen wuy ji leen woote yàlla ak woote sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekkee woo nañ leen ci bërëb boo xam ni boo leen fa àggee da ngeen dund yàlla nag bu dee dund dunduk ruux moo wara mu ne xad aflaha man zakkaha wa xad xaaba man dassaha kon jotaay bii ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla boole ci jotaay yooyee waaye ki ko woote nag di sunu xarit di sunu soppe di sunu lépp ñu bokk sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu tudde ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu wàññeekoo di tantal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu laa xarwa ndax alaaji abdou sunu mag mu baax radiyallahu dafay wax ni wala yuasabul jalilu samadu man ismuhu muhammadun aw ahmadun képp kun tudde sayduna muhammad wala ñu tudde la si amada tidiane yàlla du la réglé kon buñ ko tuddee sayduna muhammad mu woote bi sa sayduna muhammad njaboot gépp daje fi mboolem kuy jullit mboolem kuy taalibe mboolem kuy soppi si amada tidiane ñëpp daje fi ngir yàlla jëmmam ji dañ koy ñaanal lim ci séentu ba tax muy defar mu organiser bis bi ko ñaanal yàlla yàlla defal ko ci lu kawe njortam ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ci barke waaye nag ku ni Mouhamed ni Baye Ibrahima Mbuub Baye Ibrahima Mbuub nag mooy kan mooy jëmm ji nga xam ni dafa jeexoon takk ci Seex Madike Seck borom yàlla nee na ku xamoon sëñ Madike xam Baye Ibrahima Mbuub xam ni duñ ñaari jëmm mais benn jëmm la ñun lu ñuy nekk ay ndaw ndaw buñ buñ Baye Ibrahima bu daan ñëw ci ba Kajoor bu daan toog ak Seex Madike ñoom ñaar mën nañoo toog ba fajar di waxtaan ndax ay wëllëre lañu woon mais ginnaaw taalibi gi ay soppe lañu woon ay xarit lañu woon yàlla yàlla dolli njéggalam yal na yàlla dolli yërmaandem waaye sëñ Mouhamed mi tabaarakallaahu jël tànk yooyu yëpp tabaarakallaahu fa ko wuy juróom tegoon macha allah mu teg fa tànkam ndax doy na yaakaar naa korite gune Ceneba Kajoor tabaarakallaahu fa lay jullee macha allah comme ni ko baayam defee dara wàññeeku ci kóllëre googu la jébbal sëñ Pape Moutala Seck sëñ Pape tamit yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla sàmm ko yàlla aar ko ci barke yonent ba si Ahmad. wasalaamaaleykum. waaw ñu ngi lay nuyu di a baax. tey boo taxawee fii ci bisu Mouhamed bi mu cëralee ci ngay wóolareem di xaritam mu tëral ci cër bi lan ngay wax ci bisu ci Mouhamed bi. waaw li may wax ci bis bi mooy suñu xarit la suñu rakk la waaye dama ànd ak délégation xalif général bu Thiénaba porte parole ngi nii taaw baa ngi nii ak njabootam kon dama fee taxaw ñaari tànk ak tànk takkat yonent bi am na di sama rakk waaye nag ma accompagné euh, délégation xalif général muy seen seexu xam naa incha allahu bis bi liñ ci doon ñaan mel na lu ci bari yàlla wan nañu ko bu ñu demee ba ci biir daana gën a yaatal incha allah. maaleykum soxna Ndeye Mboub. maaleykum salaam. ñëw ci bisam bi muy premier bisam fii si Thiénaba nga xamante ni mooy tàkkusaanu Seydina Mouhamad nga ñëw fi ànd sa délégation bu mag jóge Kees tey lan ngay wax sa bis bi sa bisu rakk ji ak lan nga koy ñaanal ak lan nga koy léemoo. bisimilah rahmaani rahim. asalaamaaleykum. sëriñ Bolle maa baa ng di ziar sant sunu ñaari waajur. bu ma jullee ci Seydina Mouhamed ba pare maa ngi sant sunu ñaari waajur sama baay ba yàlla na xippee àjjana di ñaanal sama yaay ji ak ñim fi seqal kër gi yëpp yàlla na gudd fante wér di sant Cenaba Seck gépp di sant groupe bu soppay Amer Yacine lépp ñoom la dañ leen di gunge rek waaye ñëpp ñooñu ñuy wax Mouhamed nag yàlla na fi yàgg te wér ak képp ku muy àndal ak sëñ boole ñëpp rek di sant waa Thiès ñoom ñëpp nag sunu nit yëpp ñëw nañ ca na ba sepp gépp génn nañ sunu doomu ndey sunu doomu baay ñëpp génn nañ ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla na doon ay ati ati ati at ci daraja yonent bi kontaan nañu sunu xol sedd na lépp nee na gàññ macha allah. waaw ah, macha allah bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi rek di sant suñu ñaari waajur di kontaan macha allah ci Mouhamed bis bi macha allah liñ ci séntu woon lépp. yàlla defal na ci ñu defal nañu ci lu kawe suñu njort di sant nag sama yaay ndax lépp moom la di sant Baye Ibrahima Mboup bu baax ndax nag moo nàmpatal Mouhamed Mboup ci yonent bi di kontaan rekk di bég rek di kontaan xol bu sedd guy macha allah laa amee tey lépp baax na macha allah yàlla guddal fanam yàlla wéral cëram te bàyyi kook ay soxlaam ci barke yonent bi. soxna Khady Mbuub Khady Ndiaye Mbuub asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa maa ngi lay fay bu baax. soxna Khady sa teewaay ci bis bii de kenn du gis la laaj lu tax ndax Mouhamed sa sa sa rakk la ngay magam uuf ko yar ko mu bég ci yow ndax nit bu dee ba am bis tuddee la tudd la ci kon am na bàyyi na la kon lan ngay wax ci bisu rakk ji. xanaa kontaan rek am ci mbégte am ci mbégte lool kontaan sama xol sedd guy ndax sama rakk ji dañoo bokk baay mu bëgg ma di nuyu alaaji Makura suñu xalifa di suñu baay di suñu lépp bis bii lu rëy la ci man fan yii yëpp damaa feebar waaye damay ñëw Mouhamed gis sama jëmm ji ma xool ko mu xool ma rek ma génnaat fan yii yëpp damaa feebar waaye Mouhamed jaral na ma jug ci sama lal ñëw mu gis ma ndax cofeel gum am ci man jëlale naa bokk baay gën bokk baay waaye dama koo bëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi kii nag sama baay la sama xarit la kaay nii man waruma sax a wax moom moom sama kàddu moom moom sama lépp ndax sa ne sama xarit di suñu baay di suñu lépp taxawuñu nag fi suñu papa daan taxawoo waaye di gërëm sama borom kër bay di mbuub mi ngi nii jóge ba Mali ñëw ànd ak man ak Modou Mbuub di seen xalifa sama yaay Marème ak sama mbokk yi ñëpp ñoom Sénéba ak ñi ma gunge ñëpp sant naa ñëpp gërëm ñëpp yëg lu kawe daal ah, billaahi wallaahi kontaan sama xol seet maa ngi sama sëriñ bi ndax dama wérul fan yii waaye dañ na ci man lu nekk yaakaaroon naa ni lii ma man sax duma ko man mooy sëñ bi waaw sëñ bi ah, ñi kontaan comme tey moom bis moo tax ñu ñëw wax dëgg yàlla ñi ngi kontaan bu baax a baax waaw waaw maa ngi roy ci baayu Xadim waaw salaamualeykum sëñ Asma Aliou Mbuub. waaleykum salaam wa rahmatulah. tey boo toogee fii ci kaw ku la fekk doo laaj loo fii def ndax lu tax Mouhamed sa rakk la ngay magam safoo ko. premier bis tàkku sant naa Mouhamed lan nga yëg. waaw bëgg rek xam mbokk moom mbokk la sama nijaay daan na ko wax mbokk mbokk la waa te deret moo ñu yëngal daal. waa te mbokk bu baax daa jara safoo waa ñu ngi koy ñaanal yàlla nañ dem ba naan cinquantième édition Yalna yalna dundu ba don sagu fami bi wa dundu ba teral ta Yacine Ndiaye ak fami bi yëpp li ne sa xol yëpp sa doo ko mën wax bo tourner gis rek ñu tuddé ko khadi Ndiaye mbub da ngay contane loolu moy mbokk bokku la macha allah nañ dañuy bañ sori dal, wa Mohamed dal yalna ko yalla fal cat wa waker keur Baye Ibrahima mbub ba ci wa keur mam gusan yàlla nañ kawe ni soorooru Tuubaa ba. <laughs> Euh, seen bi mooy mil TV. mooy. TV nekk Géejawaay sa koñ. ah la nekk sa koñ. ok ma présenté la ko. ok ne la sa chaîne la. sa chaîne la effectivement. maanaam loo soxla. waaw bu ci tàggu kenn lan ngay wax ci Damel TV. waaw ñu ngi ci barke Seydina Mohamed ci barke sangi sangi Damel dem ba toll ni RTS. yàlla mën na ko yàlla na ko def. waa Damel TV suñu tele la. sëñ Asmari jërëjëf kontaan nañ. waaw sëñ Boole lan nga ñuy wax ci bisu Mouhamed bi ah olof yi dañ né jaan day wat ci watitam mohammed nak wat wat watitu goor gi ndax kep ko sa bay daan tag yonent bi ñu may la ñu maye sa nday ci addiya ci lolu yow nga juddu tag yonent bi wat nga sa watit def nga la sa bay daan def wa akuma taala tek tel ne di ngeen sop rasulullah ta ibnu muhayyab waxoon ñu ni ma hala xubbuhu hala ابن مهيب نانا لب لو تشافي لو رسول الله دين نانا لولو زيرو لب لو امول مغي لو رسول الله ابن مهيب نانا بال لولا نجارين اموس يرنت بي وخني من احبني كان معي في الجنه yonent bi nee na ku ma bëgg waxul nag noo ko bëggee ku ma bëgg ñu ni teg mu ni bu yàlla wale bufta ba nuy séparé jaami di gurgër ñii jëm àjjana ñii jëm sawar yonent bi nee na yow mi ma sopp bul tiit maag yow àjjana rek lañ jëm jëwaaraku sëriñ seexu bayti booy firi mu tàmbali jaar ak majruur bàyyil jag majruur ja dem firi ko ñëwaat jël jaar ja neel yawmal xiyam ñu ni teg ibnu muhayyab ni narju jawaarahu yaakaar nañu dëkk ak yonent bi ñu ko si naafila yu bari waaye dañ koo teg si bëgg yonent yàlla muhammad bi xubbi rasulillahi cofeel gi nu am si saydina muhammad mahabba gi nu am si rasulullahi سيلانو كاري ألق يوم القيام يلا دغلني أجرني عندك سيدنا محمد برم ابن مهيب وحر وحب الدعوة أعدو موسم لأهوال الحيامة تيتانج يوم القيام ياب بلغين بن دكيبات دوتيريات peese jëf yaat jéggi siraat ya sëñ Alioune ibnu Moho boole nee nañ bàyyi day daw doom mu ne amul problème yaay day daw doom amul problème sawara day jaayu tarmi bi sararin kala asir amul problème ibnu Moho yëpp mi naa ko de jàng na al aariatu mal amul problème jàng naa isa sutlat ardu zilzalaha amul problème gëm naa ne day am waaye waajal naa sama bopp lay ñun ko no wajjal suma sa bop pour affronter jafe-jafe yobal xiyam mu ni dama bëgg rasulullah waajal naa sama bop bu yàlla dékkiree jami duma tit do raf duma ma daw ñu ko lan motax tax mu ni dama bëgg Seydina Muhammad mu waxat fanen ni mom ibnu muhayyab ni wasilatuna يوم القيامة خبه ibnu muhayyab nee ku yaakaar ni yow laa yaakaar yowmal qiyaam roppil sab garañ te bàyyi ma ak yonent muhammad moom rek laa wéeru ëllëg yowmal qiyaam bu yàlla dékkalee jaam yi ma ànd ak yonent yàlla muhammad dem ajjana ana ñi bëgg rasulullah ana ñi bëgg seydina muhammad ibnu muhayyab waxaat ni bëgg gi ma bëgg yonent bi ñett yii laa ko seedeel bàyyi ma dikke ñu ne ko ban ak ban sëñ ni sama xol jox naa malatu bi xal bi wa masmaay boo ko bëggee dégg neel malatu bihi xal malattu bihi ayni malattu bihi masmaay ibnu Muhayyab nee na ajaa binta sama xol bi daa fees dell ak yonent yàlla muhammad ku dul rasulullahi xaju bi ku sama xol waay nii sama bët ku dul rasulullahi wa masmaci digluuma ku dul rasulullah lu mu ko jural wa adnaytuhu bi sikri fa huwa bihi maci walim la ay waay joxal leen ma Amady Yacine Ndiaye bi benn micro bi bala ñoon nu nguñu dem malatu bi xalbi mu ne malatu bi xalbi malatu bi xalbi nee na sama xol feet na dell ak rasulullah ku bëgg yonent bi jógal taxaw ku taxaw yàlla nga siyaari Seydina Muhammad malatu bi xalbi malatu bi xalbi nee sama xol fees na dell ak rasulullah waay ni nee na samay bët kenn ko fees Seydina Muhammad la wa samay nopp digluwul ku dul rasulullah mooy li may dimbali ba may jege Seydina Mouhamed xam nga ko déedéet mu ne damay rasulullah waa damay toog bi dëkkri nee ma bëggee jege yonent bi dama naan Seydina Mouhamed waa damay toog bi dëkkri rasulullah naan Seydina Mouhamed waa damay toog bi dëkkri foo bi may su ma jullee si yonent yàlla Mouhamed bàyyi mu ne pourquoi pas. lu tax lu tax lu tax du am. lan moo tax loolu du am. walim laa ñool Makka bàyyi Fatima ak Roqaya am na. am na ñeenti biir yoo xamante ni mooy boroom. mooy boroom leer gi. li ma yor كوي ود لير دمتي رسول الله وكم كيب كوي ود كو خيرن لمن رسول الله كوي ود نفلاي لمن يشكو دمتي سيدنا محمد لمن يقدي موسى خول يا ان رب العرش بن بن الكو الا مني الا ديغلوما borom aras di yàlla sarrafa ahmada moo teral sa turandoo rasulullahi wa wafa bam ko teralee wa wafa bi mu dig yonent yàlla muhammad busra mbégtam adduna ak alaxira jasa mawida yowmal xiyam rendez-vous ba njol makka la fii si àdduna la yëkkatee rasulullah waasra bihi qaala mu génn nekk umu hani moom rasulullah waasra bihi qaala mu yónni jibril mu ànd ak albura wasafaawo gada yowmal xiyaam kenn ay ramu rasulullah jarat laylatal israa bi yàlla defal na yonent bi way wudul fay mooy guddi gi di ñaan nga wa man ka rasulillahi ana ñu bëgg rasulullah wa man ka rasulillahi ana ku mel ni seydina muhammad wa man ka rasulillahi ana soppay rasulullahi li wa man ka rasulillahi kan mooy deme ni rasulullah lillahi yaxruju di riñaane ni yonent bi riñaane mooy benn jambi. bi ahmaduhu ala abdu mooy benn jaam bi képp rek dong sa turandoo asufal yonent bi il ardayta tuddi rabbahu ku déggoog yonent bi yàlla déggoog yow ku bëgg yonent bi yàlla bëgg la wa man zaarawo fallaahu ana ñi bëgg a ziyaari rasulullah ana ñi bëgg a ziyaari rasulullah ku bëgg a ziyaari rasulullah jugal taxaw ku taxaw yàlla nga ziyaari Muhammad من كيف كزيار رسول الله كزيار سيدنا محمد صون أسا كزيار ينتبه الله جيغل لسي بكار كيف ياك نك نواك الرسول الله نواك الرسول الله يا ياسين يا يالا كزيار رسول الله léegi nag ñi bëgg rasul léegi nag ñun waa kër rasul ñun ñi bëgg sa turandoo islam nuuta bu fekkee mënagunoo dem ziyaari ko bu fekkee jote wuñu fa nu'iddu nanu waajal sunu bopp yawmil ardi bis ba yàllay gaaral jëfi bis ba ko yàllay peese wa yudrikuna dinañu jot ihsaanu mbaaxam haysu ma kunna fu mu ñu fekk daani bàyyi ma amadihil Mustafa ma joobe sa turandoo mooy sama soppe rabbi dil wafa mooy borom kóllëre almuntami mooy ki askanoo si ñu baax lool maa ngi woo góor gi gën a làpp si lu yàlla bind jooja Seydina Muhammad hara jikko ja dafa laab asxaabu sa turandoo xumbarara ñoom ñëpp baax siiratu histoire sa turandoo munawara ak leer la wadul baha idairi sa turandoo mooy borom taar bi wasaliyan yàlla yàlla nga dolli jàmm ya rabbana yàlla nga màggal ala nabi taahiri fi gën a laab yàlla bind ana ñu sopp Mouhamed Yacine Ndiaye tooñkat yi yowmal xiyam nekk na di ab yonent waa dama baynal maa iwati booba aadama ngi si diggante ndox ak ban sa turandoo baayu Fatima moom la yàlla yónni si mbindeef yëpp comme ni ko yàlla waxee tudd naa sellam ba màggal naa ko ci téeram bu bir bi rasulullaay sa turandoo la bàyyi Fatima bàyyi Rokhaya bàyyi Seynabu bàyyi Umu Kalsoom maami Seexu Tijaan la kookoy njiit Haasim mooy maamam kooku la yàlla yónni bokk

أسكنم من رايب دكار لوبا خلوب كان سخلوب ترنو محمد رحماني يرمن كبرا دندب رسول الله إبا نوراني لير كبرا لمن يرن تبي عربي عرب لي وح في مبوك ndey binta sama may sangu nit junne benn sang lu am rasul la mooy rasulu saqalayni sëriñ Ali Pape sa cël eh, Pape Abdoulaye Pape sa soppe mooy sangum nit junne la bi tawili jaayib sëriñ Ali yonent bi njoolul comme sëñ Abdou. wala. bi xasiiri daani. gàttul ni sëñ Seexu Amadou. daa weex tàll ak rafet. ak boo. ak Ali rasulullah ba kenn ba daa rocceeku leer daw njool ma rafet. nopp ya daa génn njool ma boo. yéen ya daa sëq njool ma boo. lex ya daa nooy njool ma boo. loxo ya daa jot njol ma kaaboo xar kanam nga daa roo njol ma kaaboo oh, oh. xaamatoo kenn du moom baayu Fatima baayu Rokhaya moo yetti oh. waay màggal Rasulullah waay ku ñime piiti mi ngi nii toog ku bëgg lu baax mi ngi nii toog aka tabe aka bëgg ay waajuram jàmbar dëgg ngi nii amet boo amul woon nii rek ñu am gàcc li ngay yenn si àll tagg ko yonent bi fanaan ko si àll tagg ko yonent bi te yenn saa yi ñu jóge tànt ñëw dépasse da të waaye découragé lii rek nga mën a am waaye yéen a gore lu leen amet lebaloon rek fay ngeen ko ko lii rek nga mën a am mbuub bu du waxuma yàlla fay la waxuma rasulaay fay waxuma seexu tijaan waaye kii maam amari ndaag dong dong bu na fayee nga giijal te jàpp naa ni laasmaa la yaa baax ku yiw a ngi nii ànd nañu ay at billaahi musuñoo ànd mooy yàlla mus am mukk ànd joobe rasulaay rek te fii ku newoon woon sab dëkk ku amet masa taxaw sab dëkk jugal taxaw baas bi yaakaar naa ñëppee taxaw kon mbuub kenn lebal si wu la danaa fay si yal na yàlla fay la yal na yàlla sàmm la am nga sa ngërëm yi sëriñ am sa ngërëm yi waajur am sa ngërëm yi mag ñun say xaritit gërëm nañ la loo yóotu yàlla nga ko jot kuy wut gor booy ba mu jàpp la kuy wut jàmbaar booy ba mu jàpp la kuy wut boroomu fit booy ba mu jàpp la ànd nañ fu ne mu metti lool dawoo daayoo ngir liggéeyu maam amari nag ku la xam ci maam Amari Ndaak rek la Cheikhou Tidiane rek rasulullahi mbub yàlla na yàlla fay la yàlla sàmm la yàlla na yàlla aar la asalaamualeykum wa rahmatullah programme bii bu fekkoon famille yépp dañoo toog seetaan ko yaakaar naa du tee mu baax ndax soppay Ahmed Yacine Ndiaye organisation beeg la ca ànd lépp ñoo ko def suñ ko defuloon ñun ñooy summeeku def ko waaye kenn amul foo jàpp ci ñun ndax ñoom yàlla na yàlla sàmmal leen seen ànd bi ci des tamit loola doyoon na rek amet ni mën ak sama soppe yi mënoon nañ ko def waaye dafa jël parrain bi di bàyyu bés bi mu jox ko Pape Abdoulaye Mbuub mi mu bokkal benn baay wala bokk ak moom ndey ak baay te mu jànge ci ginnaawam tagg yonent bi ñun jotuñu ci suñuy jur Pape mais moo ci jot jànge ci moom waaye moom mii mooñ jàngal su doon fàtte na ko du ko def pare te am na ñu mu mën a def pare fàtte woo ñi nga bokkal te loolu protection la ci nit Xadi Njaay mbub mii ñoo bokk benn baay Ibrahima mbuubay baayam Ahmed da koo def invité d'honneur nee na kaddu yi bala moo door Pape maa jooja mbuub mi nga xam ni mooy suñu xalifa di khalifa mu gusan ma jojo mbub suma daane le kaddu gi ci loxom la koy tek kon pa ba léegi fàttewul Mouhamed fàttewul ay mbokkam kenn mo micro central tag yonent bi rek lañ ma xamé mu woo ma ni ma bul ci tek bat ma loy bëgg wax mu ne ma micro central bi ya ko yor mani ko j'accepte loolu man na ko top par ben ba ñepp xam ni lu mu am am ay nit yu ko dar bayiwul ginnaawam ay mbokam loolu il faut le dire nañuy wax yi nga xamni ni nit ñi ñu ngi koy def te bu defon safan nga tak ci kawam bu defé lu baax nañ ko wax ci kanamu nit ñi Mohamed am nga ndam yalla yalla sam la dañuy jël kaddu gi rek ndax li tax nak bokku na ci ñu jox ma kaddu gi xam nañ ni duma koy commentaire lu yag ndax dañoo bëgg rek programme bi nawet la nek te am na xamni lu muy yag yag dañuy tok bu dé taw te dañuy tok ak lu mëna xew ñoñu nañ leen sóoraale ci bis bi ndax lor ma sax taxul lor ma dagan pap ma bu dé jege nañu mi ngi ñuy dégg mu yegg si incha allahu taala jël kàddoom moom tamit wala baayam bi ku ne xam na ni ba ngeen duggee ci tànt ba ba léegi yéen a ngi génne seen addiya di ko joxe waaye nit amul lu dul kilifaam te ku ko teral moom nga teral kon ñu ngi ñaan ñu jàppale Ameth ci loolu as nga am waaw yaa daba Ndiaye yow tamit ñu ngi lay ñaanal yal nañ la teeru yoonu màkk yow ak suñu yaay Yacine Ndiaye mi nga xam ne lépp moom la ak suñu yaay Mariama Mbuub yaay Coro Mbuub dañuy jël kàddu gi rek ñii ñëw nag mën na noo wéy di ñëw Pape As da jël lii déedéet joxal ma ko Pape muy wax nit ñi di ñëw ndax ndaanaan la loolu da koy sawarloo pour ñu gën a am temps. ñu ngi sant yàlla waa di sant Serigne Thiénaba Ahmadou Ndack Seck mi nga xam ne lii njàng te mooy njàng yal nañu ko yàlla fay. amiin damay wax ne ñun waa Kër Moussa suñu ànd ak maam Amari Ndack am na lu ko jiitu déglu leen baax na muy bëgg a wax suñu ànd ak maam Amari Ndack dafa am fu mu tàmbalee. ndax maam Ndaat Fall ñu jur maam Amari Ndaat maam Sayer Seck moo ko doon denc maam Sayer moo jur maam Amari Ndaat moo jur maam Makan Seck moo jur maam Kouma Ndiaye Seck moo jur maam Xëri Ndiaye Seck ñuy ñeenti doom góor ñaari jigéen maam Ndaat Fall ñu jur maam Amari Ndaat bi ko jox maam Sayer ma nga ca teel a jox suñu maam Lattar Mbuub moo ko yóbbu maam Lattar moo jur Biram Xuja Biram Xuja moo jur Maali Kumba mu mag ma Maali Kumba jur sama maam Makura mu mag maa mag Makura jur sama maam Ngusaan sama maam Ngusaan jur Alaaji Makura mu taaloo mu téléwaat ma Ngusaan kon maam Makura moo doon ànd ak maam Amari Ndaa maam Ngusaan doon ànd ak maam Momar Taala Seck an ma benn rek ak ma mën kilo koy géey ñoom ak ñu ko bokk alaa ji ma ko ñëw te ko borom yaaram ak ay rakam yëpp kon ragal naa sunu ànd ak maam Amary Ndaat démb la tey soog a ñëw bu baax xam nga nit am na dafa sant te man am lan sama rakk maa ngi leen di gërëm li tax ma kontaan ci yéen mooy yéen ñëpp jox ngeen ma cër yéen ñëpp respect bu mag ngeen ma jox te ku ci nekk ànd ak man xuloo bu kenn xuloowu ceeg man kenn werantewu ci ak man te ku ma ci ne nangam doo ca teg baat loolu ku ko am ci say rakk nag war ngaa sant yàlla de ndax waxantuuma de li may wax dëgg la sama rakk yi nga xam ne ñoom laa bokkal xam nañu ko tabaarakallaah ndax ku ne xam na ne maam Gusaan moo taaloo alaaji ma kura ak Mati Mbuub ak Malick Mbuub ak Ousseynou Mbuub ak Ibrahima Mbuub ñu bokk ndey ak baay fa tabaarakallaahu kon di jurit aji Awa Diop kon li may wax xam naa ko te fu wér laa ko teg sama mbégte nag laay feeñal rek mooy kontaan naa ci bu baax yéen samay rak te maa ngi leen di ñaanal yàlla nag ku ci nekk foo bëgg egg na yàlla na ko weex lii nga xam ne nag mooy sunu nono muy Thiénaba ñuy gërëm Baay Serigne Assane Seck mi nga xam ne tey mooy boo fi toogee maam buur gu mag waaye nag doon ko sëkk mat ko sëkk xam nga doon ak doon daa bokkul bàyyi askan doon nuwul maam taala da koo doon ci fulla ak fayda ak fit ak jom ak nangoo liggéey bàyyi as loola def kon bu yàlla demee ba teg xilaafa bi ci loxoom nag fa tabarakallaahu ah dañ ci sant yàlla bu baax mbaar ñii tey di mbaarum Sidina Ibrahima Seck borom yaaram kenn bu ko werante mu ufoon ay rakkam boobu bëgg leen kon lépp soti ci ak def ci dong la kon yar na doli jam jàmm na ni bu baax suñu xol sedd na guy may sama wax moy sama xol sedd na ci ñepp mbolem ku yow wuy si gëreem na la sant na la sama xol sedd na ci yow gis naa ñëpp nag bàyyiwuma kenn rabbani def min ni al musalati مطاله مولاه بالكشيوت ما يتي وليا كسر مدريتي أما جاري يا مودر جاري يا محمد أنا مقام وقفل مقام بنا راجيك جرتلتي نبيون يا محمد سخرين يا لتني نيدون تيميري جنة أبنتي جنة نيات من ألس برام كنت كل نروا يا محمد موري بالي وفاد لو وفاد لو وفاد لو الأخيار والمسلمة بالمراتب الأنية فكان من أولين مديا ولآخر ختام وشرفت أنا المني سابقة القمريات فنال بي درجات القرب وصعد واختيار قلت يا ربنا في أجل السماء أمتنا على تصديقنا باتفاعي فإن أمر الأرواح يحيى بداي يشق علينا حيث دون الخاي إذا دين لم يكمل ولا كانت الدنيا محمد رسول الله